salaamaaleykum salaamaaleykum amee tondoor Thiès Info mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen bëggee waaye itam di leen jox seen wàccuwaay dellu di leen kontaane di am mbégte a baax ci Thiès su doxee Thiès Info la su baaxee fii fii la tey nag mbokk yi euh, kenn umpalewul li nga xam ne moo xew ci askanu sunu gaal muy xel yi nga xam ni yëpp dellu nañ jëm ci ki nga xam ne moo di Serigne Saliou Mbacké euh, Serigne Saliou Mbacké nag nekkoon juróomeelu xalifa Serigne Touba Khadim Rassoul waaye itam nekkoon sax li nga xam ne moo di daaneelu euh, bantam bu ñu mën a gis ci jamono moom Serigne Saliou Mbacke euh, borom jurul la ko gaa ñi di wax <laughs> borom dooka borom daara njifingil ak ak yu baree bari ba ci borom jamono sax nit ñi dem nañ ba dik ko moomale moom nag la ñu fas yéene waxtaane tey mbokk yi ma feggoo ci ak ki nga xam ne moo di Serigne Bamba euh, Serigne Bamba moom itam di ko yàlla baaxal am xam-xam lool euh, jaar ci li nga xam ne moo di Al Azhar Al Azhar bu Cheikh Mourtala macha allah ma di ci dalal itam ki nga xam ne moom nee naa leen Thiès Info miin ngeen ko <laughs> kenn dootu leen ko présenté muy Modou Modou wàdd di ndaanaan ku li fàddilu ndaanaan di tàgg di tàgg yonent bi eh, tàgg Serigne Touba Xaadimu Rasuul waaye ñëpp xam ko ci ëttub eh, Serigne eh, Serigne Béthio muy tàgg itam Serigne Saliou bëgg Serigne Saliou lool ba sopp ko looloo tax nag fu mu toll di ko waxtaanee kon nag mbokk yi du ma def leen rek lu du daal di leen di bàyyi ak Serigne ba mu nuyoog yéen wala sëñ Bamba ma bàyyi sëñ Modou mu ni der mu ni der ci Serigne Saliou su ko defee ñu ñu ñu ñu ñu waxtaane ko. sukk naa di dagaan. di dagaan si say boo xoolee ko fi am mbàkke yaa ko may sang man sa ñaan bëgg na fal dame lu dul sa tibaate doy na ndap yaa maye mbàkke sant na sëriñ sal musal nga nu si tawat balaa baalu ñaaw bamba ko xam turam ba du tawat sant na sëriñ sal ku am sang bi dul jeexal man jaam bi mënoo jeexal lu nu mel yaa nu ko may sant naa Serigne Sall di ñu si say tooli ndax dafay law di meññee di maam Saliou yow la ni way ku fi am moom moo la may moom la ni ñaan sëñ Saliou doo fi ñaar jërëjëf ndeysaan ah? macha allah macha allah mu wax lu am solo ci Serigne Saliou Mbacké euh, Seydina Bamba euh, yow itam da ngay daal def li nga xam ne moo di présentation wax am internet Thiès Info yow yaay kan waaye dang nag nga dikkal ñu ci Serigne Saliou ana kan mooy Serigne Saliou lan nga xam ci Serigne Saliou digganteem ak ñi nga xam ne moo di mbindeef yi yërmande ji ah, ak lépp li nga xam ni rek euh, boo ko tey ji joxe am internet Thiès Info ñu am lu nu fort ci Serigne Saliou donte kenn mënu koo xam. auzu <laughs> billahi samil alim mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafi almursalin wa zakkilu bi waftaxan rabbi liya fatxan mubinan la yura li misliya waliyahab xasaxatan wa nuura wa fi siraati yasiril barkeb sëriñ Saaliyu Mbàkke ñoo ngi nuyu ñëpp tey ziyaar ñëpp di baalu ak ñëpp di jéggalu kàddu gi ñu yëkkati day kàddu yu ndigal rek suñ fàllu ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di ziyaar suñu soppe suñu xarit suñu jànkat muy sëriñ Modou Wade ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar ndax sunu teewaay sax ci fii ci moom la ko yàlla jaarale ndaanaan bu mag man nee naa ko danga may daaneel lool ndax man dama bëgg sëñ Saliou Mbacke lool li ma la gën a jàppee bokk na ca mooy sëñ Saliou Mbacke ji ngay woy tey nag eh, sëñ Fall dañuy waxtaanee ku yéeme di waxtaanee ku doy waar di waxtaanee ku baax muy borom la force tranquille le dernier fils de si Ahmadou Bamba sur ter borom le pouvoir absolu Serigne Saliou Mbacke mooy ki jox leen ma ndaw ñi ma def sa ñoom la Cheikh ma defoon ca mag su ma ko yeyowul sax ma barkeloo ko man Serigne Saliou Mbacké yeyoo na ko bu baax mais la modeste lay jàngale di ko bëgg sëñ Touba waaye di ko bëgg maam Cheikh ma Fall sëñ Saliou Mbacké daa bokk ci njabootu xaadim rasool gi nga xam ne ginnaaw géej gi la ndax njabootu sëñ bi sëñ Fall di séddale ko si ñett avant géej gi biir géej gi après géej gi dina jaaxal ñu bari nag xasaay di sëñ yi daa séddale ko si ñett. les écrits avant le départ pour l'exil les écrits durant le voyage ak les écrits du retour au Sénégal seexi seexul xadim yi bi muy dem ci géej gi la seexal avant muy dem ci géej gi la seexal biir géej gi seexul après géej gi lay door a seexalaat bi mu dem ci biir géej gi njaboot gi ñii ñoo fi nekk sëñ Modou Moustapha seex Mouhamadul Fadal seex Mouhamadul Amin Baare mi gënee jamono Touba ni maa ngi dem gan ku feeñ ci sama ginnaaw tuddil leen ma ko Mouhamadul Basir bi mu agsee ndar kër Amar Xuray si nañ ko déclaré ni ko soxna Fatimatu Maamu Jóob ko na mu ne nañ ko tuddee Cheikh Mouhamadul Basir moom la Cheikh Moussa Ka di wax ni ba muy taalif xasida ak Asiru sa mooma at la am Sëriñ Basiru ba muy taalif banaan xaruuru ndawal borom ndar woo ko mbër ma muuru keroog la baam ba njëkk a feeñal xar baax ngir Moodu Njaay maa bii la wóolu cimtaax wan ko asiru ni ko yaa may seere damay liggéey léema del si jéeri yowmal xiyaamati may ramb ahlul bari kon moo tax damay ramb ji ahlul baxri te fekk may del si doo fi faatu dina la fekkandar li ayaat kon mu dem ci géej gi dikk sëñ Salim Mbàkke gane jamono ci njaareem dëkkub sëriñ tubaab bi nga xam ne tubaab bi ñu yóbbu sëñ Touba njaarim pour sànq koo tax sëñ Fallou sëñ Touba moo dàq tukki ci àdduna moo déparé Mbacke Bari jaar Tunda jeewal doog a dem kokki doog a dem Louga doog a dem dakaar doo ko dem Ndar doog a dem Dakar Kabouk Kassandra Grand Bassing Kablater Ndimbal Wali Bouma Bouyama Kongo Belsi Kongo français Luwanga Inde Buruki Katana Karambasa Wirwir Gabon Mayomba ba de ci la 11 novembre 1902 1903 mu dem gànnaar Xumaak Sarsara Sehwatulma Biirul Xayri mu ñëw Jolof résidence surveillée 5 ans 1912 mu ñëw Njaareem Ramu Masiri ila Jurbel la daal l'assassin law ayanu sirrama fi sayri ma ramu fa sayru mawtun ala man wa azan wa inni lay ibxaun wa ikramun dëkkub sëñ Bamba bii la sëñ Saliou gën a jamono. dégg nga loolu. sëñ Saliou Mbacké gën a jamono sëñ Saliou li tax mu yéeme turam kéemaan la. ak dundam kéemaan la xilaafaam kéemaan la. ak tur yi waaw tur yi saalixu la boo ko calculé 99 la lay jox. muy jàpp 99 yi turu yàlla yi. boo jëlee li mu dund moo la jox Mouhamed 92. miim 40 la. xaa 8 la miim 40 del 4 di 92 di 92 ans yi Serigne Saliou Mbacké bi muy toog si jal bi di doon sëñ Touba 75 ans yi sëñ ba am génn jamono moom la sëñ Saliou Mbacké am toogal Xaadim Rasool kon sëñ Touba daa simmi mbubb mi dem àjjana jox Serigne Saliou Mbacké mu toogal ko jamono mu gën a jamono ci njaareem Serigne Touba bind as saaliha daal ni na ngeen ma ko ñaanal ndax dama am ci moom yaakaar njaboot gu mu am day génn jamono njaboot gu mu am day génn jamono bis mu toog tuur ay xéewal sañ Tuubaa ni ko ah soxna Faat Jaxate kuy ànd ak man da ngay nangu muñ talu yàlla dogal da lay neex xanaa xamoon sa njaboot gii di dem yàlla ngi lay waajal koo xam ne bu dikkee da nga fàtte mboolem ko fi a jaar booba lay programme Serigne Saliou Mbacké mi mu gane jamono sañ Tuubaa bind as-Saaliha gi nga xamante ne mooy yëwu na lépp moo tax sëñ Muntaxa Basiru ku mën a way la bi muy woy sëñ Saliou Mbacké moom sëñ da ngay dégg mu ni ko uhibbuka yaa sayxi wa musliha xaalina maa la bëgg yow Serigne Saliou Mbacké yow mi nga xam ne yaa yéwénal sunu mbir yëpp salaaxu ko min ahlil ilahi musaahadu sa yéwénal gi ñëpp a jàkkaarloog moom yow Serigne Saliou Mbacké daal di koy wax ne yow sa tur wi ku xëy moom lay wër muy ak yéwénal wa maana ismika matlubun fii kulli kainin mboolem ku xëy rek yéwénal lay wut te mooy sa tur bi yow Serigne Saliou Mbacké mooy yéwénal lu yéwén mooy lu baax doole léegi lil xaajati l ujuru wal masalixu bi tayyi wal jazb wa inni saalixu sëñ Saaliw daane wax ni donte wuxut ak man sax waaye dama koy barkeeloo man sëriñ Saaliw Mbàkke sëñ Tuubaa dañu yàlla yor dina fayoor yëpp jox ma ko man sëñ Tuubaa ci ñaar la ma ko defalee bi tey dama koo taxañal bii nag wal jës bi dama koo xëccal booba yaay kan Mbàkke mu ne wa inni saalixu maay ko baax gi ci turu yenent bi la nabiyun rasulun xayru abdin wa sayidun xalilun xabibun misluhu laysa yuclanu najiyun xaribun zakirun wa wasaakirun jawaadun karimun bilmakarimi yuxsinu naqiyun taqiyun saalixun wa huwa muslixun basirun liman lillahi bilxaqi yusinu kon kii mooy Serigne Saliou Mbacké mooy ki doon wax ne ku dul yàlla mi bind jaam ñi ëpp ma na si ñoom. <laughs> mu yëngalaat. ñu wéyaat. man man man rek neex na de ah. bu la gisatul sunu xol fu lu dem gëlëm. ñaan yàlla. jégal cun ak sangam sant bamba war na noom. cheikh bi mooy jàmbu déyloo sangam. saay su mu ngi dox ci mbégam. saa barke faj sunu aajo fu nu dem. si sa gi la ni nire ngërëm liru gu manday gunu mes fanaane xiif fanaane jooy jooy nanu maamoon bamba sëriñ saali wéetal nanu liru gu manday gunu mes fanaane xiif fanaane jooy xoolal réew mi fal metti na loole sëriñ saali wéetal nanu xoolal réew waa Thiès info metti na loole waaw waaw Serigne Saliou na nu bu la gisatul sunu xol fu nu dem gëlëm ñaan yàlla jéggal cun ak sangam sant Bamba war na noo jërëjëf Serigne Saliou ndeysaan macha allah macha allah ñu ciy bégaat bu baax a baax am internaute Thiès Info nee naa leen saa su neexee fii la eh, du dagg wax ji xam naa ne gars yi euh, commencé woon nañ dugg ci li nga xam ne moo di àll bi Modou am na ay questions yu jëm ci si yow euh, sa diggante ak Serigne Saliou lan moo la booleeg Serigne Saliou dinañ ci ñëw bu baax a baax waaye dañuy bàyyi sa ay foofu mu nekkoon moom Serigne ba mu mu mu wëyee la foofu rek. <laughs> jërëjëf fi fàllu lépp fii lay xewee li naan fii la mburu mi di xoyam xoyam mooy Thiès Info ndax li tax loolu ñuy waxtaanee tax ku la raw fa la la rawee muy Serigne Saliou Mbacké mi ki doon wax ni jox leen ma ndaw ñi ma def sa ñoom la baa ma defoon sa mag ñi su ma ko yeewul ma barkeeloo ko mooy ki doon wax ni kurul yàlla mi bind jaam ñi ëppoo ma ma yërmande si ñoom moo tax safaram bi ñuy wax góor daan dawal la Serigne Saliou Mbacké nee na maa laaj Serigne Saliou ni ko ni nga baaxee ak milliards yi dugg sa biir kër gi ak sa yére yi tilim yi ngay sol mu ne ko sàllaw góor a néeg bële nga jàkkaar lool yére yi bees sàqang fa waaye man Saliou bëgg ma cee sol benn daal ko est-ce xam nga lu tax mun ko déedéet Mbacké mu ne ko man ab fóotkat la te fóotkat du sol lu set ki war a fóot gàccee jaam ñu àdduna ak ju àllaaxira man la ko suñ bàmba sédde loolu boo ko gëmee boo ko weddee xoolal la dernière déclaration de Serigne Saliou Mbacké sa law li ma sëñ Tuubaa boole gi yéen du ma dem mukk bàyyi leen damay jiitu rek ngeen topp sama ginnaaw su ma demee ba gisatu leen taxaw xaar leen su ma leen gisul dëpp jël si leen waaye du ma tàqali koog mooy ki nga xam ne njabootu sëñ Tuubaa gépp a ko bàyyi xel ñaara daan jooyloo Serigne Saliou Mbacké nga tudd baayam ci kanamam Serigne Tuubaa mu tàqali koog sagoom sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo mën ku yàlla bind sëñ Saaliw Mbàkke sëñ Tuubaa rek doy na sëkk nga xam ne sëñ Saaliw Mbàkke amul morom Seexul Xadiim mi nga xam ne lu mu am jox na ko rasulillahi lu mu man jox na ko rasulillahi kon bu ne la sa baay mooy kan nga ni la révolutionnaire noir la réformateur du siècle la rénovateur la phare du peuple noir Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul mooy ki génnee si ay noonam ah. ànd ak i noonu dem fekki ay noonu dem ba jekk noonu yëpp war na ne jekkale ne leen jéggal naa leen kon la marabout de la tolérance mooy Serigne Touba mooy ki njëkk a kennal yàlla tudd Cheikh Ahmadou Bamba gën suñuy bàyyi man ci bàmmeel tudd Bamba dëkk Bawal lépp baawaan mu jox soxna astu gaawaan kon ku gaaw mën a ànd ak Serigne Bamba Xaadimu Rasuul kon war ngaa xam ne sëñ Saliou amul moroom njabootam gépp goo ko bàyyi xel sëñ Modou Moustapha lu mu wax sëñ Saliou nee ma ñoo bokk bàyyi rek mm. ma may la sama kër gi dane ko kër gi dama ko mu ne ko rafet na loolu waaye Mbàkke uma njëg gi hmm. sëñ Modou Moustapha ni ko kenn rek am njëg gi ci àdduna bi muy yow Serigne Saliou Mbàkke sëñ Saal ni ko loo koy jaay Mouhamadul Moustapha mu ne ko nee ma ñoo bokk baay rek ma jox la kër sëñ Modou Moustapha sëñ ni ko ñoo bokk baay ñoo bokk baay ba mu ñetti yoon mu yëkkati kër gi jox ko moo tax sëñ Saliou Mbàkke hmm. moo tax seex mu sàkk ni mboolem lu doonu xiin hmm. ci soowu jant baa feneen yàlla na saalixu mi doon jant bu tiim waa xarnu bi moom saali Saliou Mbacké njabootu sëñ Tuubaa gépp ko war xool ma sëñ Fallou sëñ Baara mu sëñ Fallou dawal na sëñ Saliou Mbacké otoom fukki at bi sëñ Saliou di yeewi dana ko Baara loo bëgg mu ne ko Mbacké tànnal ma loo ma tànnal moo ma gënal sëñ Saliou Mbacké ne ko sëtti sëñ Tuubaa yi toog yàlla na nga doon sët bii njëkk a toog mu dikk wax ko sëñ sëñ sëñ Fallou sëñ Fallou ni ko lu la sëñ Saliou wax mu ni Mbacké dani ma sëtti sëñ yi toog yàlla na nga doon sët bi njëkk toog sëñ Fallou ni ko yàlla na nga ca boole di sëñ Fallou daani ko xanaa xamoo ne sëñ Salim Mbacke am kuuf la mooy koo xam ne nguuru yàlla gi bu gaa yi kañu ak di bàkku ku ci nekk nii laa mel moom fa mu toog du fa jóg ngir ay teggin waaye ku ci nekk la nga yor moo la ko jox sëriñ Salim Mbacke te sëñ Baara daa di ko toog di sëñ Touba waaye di ko toog di Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke xoolal digganteem ak Cheikh Abdoulaye bëgg ko lool si Abdoulaye ku ñuy wax sëñ Cheikh Jaxate moo daan wat sëñ saali maanaam moo ko daan wàññil karaw gi bi sëñ Salim ni ko toogal ma ñëw ziar si bi mu dikkee mu koy defaral bopp bi ba heure añ jot sëñ Salim ni ko ndax añ am na fi mu ne ko xaaral ma laaj soxna may mbàkke moom sëñ abdulaat ndax aj am na fi bi mu laajee soxna may soxna may ni ko aj bi ñu defoon si abdulaat rek moo fi nekk xanaa dañ koy jox mu barkeelu su paree ñu yóbbul sëñ abdulaat ñu jox sëñ salim mbàkke ci loxoom yu tedde mu barkeelu ba pare bi mu barkeelu ñu defaraat añ bi ba mu jekk yóbbul sëñ abdulaat bi mu acte sëñ abdulaat daa ànd ak kontante goo xam ne laa làmb poosam génn si juróom fukki junni jox ko ndaw li doon indi añ bi ne ko boo àggee joxal ma ko soxna may nee ko maa ko ko neexalee moom mi fexe ba ma lekk desu waa kër sëriñ Touba mooy Serigne saali Mbacké am na korite goo xam ne si Abdou Khadir du ma kàbbar gisuma Serigne Saliou bi mu gisee sëñ Saliou di dugg si rek mu ni allahu akbar naka mu kàbbar ba julli ba pare ñëw ba ci Serigne Saliou mu làmb poosam génn àddi nuyu ko Serigne Saliou ni ko dem naa bàyyi la ak sab dëkk boobu lay jël jal bi xilaafa gi di ko jox Serigne Saliou Mbacké dem naa bàyyi la ak sab dëkk kon kan mooy sëñ Saliou oh. Serigne Touba ñë sëñ Touba lépp ma yéeme Cheikh mu Ka nee na ko yow sëñ Bamba nduru nit tëdu nit doom ja nduru nit tëdu nit bu sët yii ñëwee sut ay nit ñun ñii di nit nañ topp ci seen ginnaaw sëñ Saliou kenn xamul lu mu doon waxuma la xutbu gi mu doon mais sàkk nay xutbu moom xutbu yooyu sàkk ay xawsu moom Serigne Saliou Mbacké mm. di ku baax loo koy jaay mu ëppale la ko bu dee xam-xam moo la ko ëpp doon milliardaire te du feeñ ci ay yéreem doon savant te du feeñ ci ay paroles moom Serigne Saliou daan wax ni lu dul lislaam awma cag defar awma cag yàq man Serigne Saliou Mbacké kon sëñ Fallou dañ ko doon indiwaat ci sëñ Saliou rek mhm. nga xam ne ñëpp a ko fonk ñëpp a ko wormaal mhm. sëñ maam Serapha da ko daan jël teg ko ci dënd bi ni ko ah yow la saadixu mhm. yow la xaadim rasool gis gi ma la gis yow Serigne Saliou wuute wuute gis ga ma gisoon sa bàyyi Mbàkke Kajoor ba ma koy jébbal sa bopp. kon ñoom ñëpp demoon nañ ba mm, nañ ko gis gi ma la gis yow Serigne Saliou wuute wuute ak gis ga gisoon sa bàyyi Mbàkke Kajoor ba ma koy jébbal sa bopp. daani ko Mbàkke baa doo ma fàtte Serigne Saliou ni ko Mbàkke yow faal ku la fàtte yàlla fàtte fàttelu ay mbiram. kon loolu mooy sëñ Saliou ah, lu baax moom ma ndaw lu ci baax moom la xool sëñ Modou rek boo ko gisee bëgg ko te sëñ Saliou Mbacke rek moo tax te boo ko bëggee rek ñu bëgg la mm-hmm. kon lépp fii lay xewee ci Thiès info yàlla na sëñ waa defal taw feex la defal ñu ko ñu ñëpp barke borom amiin amiin Aïcha euh, nga ñëw rek wax ñu lan moo la booleeg Serigne Saliou bëgg gi nga bëgg Serigne Saliou ba koy tagg mm-hmm. yëf yi ni mu la dikkee mm-hmm. waaw Fall Damel daanaka maa ngi nuyu ñëpp nuyu waa kër gi bu baax a baax di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm waaye sama xool dafa sedd ah, li may wax moom damay damay tënk rek ñoo ñu ñu yeggale yëf yi waaw ndax sëriñ bi daanaka leer la du luy faatu dem na si bëti waaye feeñ si biir xol yi barki sëriñ Saliou Mbacke kéemaan la daal waxtaan bi am na solo loolu li sëriñ bi man loolu lu kenn mënta xam la waaw ndax man daanaka damaa nekk gone rek topp daara sëriñ bi ñu ñu daan def daara sag dimaas du romb gars di daara sëriñ bi daara rek may may bokk barki sëriñ tubaa di si boole ay gént yoo xam ne kenn du xam lu mu doon mm-hmm. barki Serigne Saliou sëriñ bi man daanaka rarement laay laa koy sax di jéem di estet ndax mënuma ko mm-hmm. barki Serigne Touba mënuma mënuma di jël di di jël ay vidéom sax di di ko di ko xool déedéet barki sëriñ Touba moo tax man damaa am tawféex mm-hmm. waaw man man damaa sagu daal man bi ma bi ma bi ma bi ma bokkee si kër Serigne Saliou Mbacke waaw waaye Bamba waxtaan bi am na solo. waaw daanaka man daal kontaan naa trop. parce mm-hmm. que Serigne Touba moom rek laa bëgg Serigne Saliou. Mm-hmm. moom rek laa xam du ma woy keneen ku dul moom. waaw man ba ma bi ma damaa am dama am Serigne Serigne Serigne bi rek làmbatuma feneen. Mm-hmm. dama koo làmb rek daj mootuma dellu ginnaaw man de ah man de maa ngi si bi Fall Damel. waxtaan bi mënuma waxtaan woy laa gën a mëne <laughs> nañ jox bamba mu àggale yëf yi kontaan naa Fall di di nuyu waa Thiès info mm, ñëpp di di nuyu ñëpp waaye sama xol sedd na am na solo ay ca bamba da ngay ñëw rek eh, ci ci ci jar ci dernier point bi nga waxtaan ci yërmande ji yërmande yi Serigne Saliou eh, eh, mu nekk li nga xam ne moo di dernier point bi ndax fi ñu moom li ñu dégg ñun doy neex nañu ay <laughs> kon da ngay dikk rek ci ci ci yërmande ji Serigne Saliou mooy jëmmi yërmande mm-hmm. rahmatul muhdaat bu ñu koy wax Serigne Saliou Mbacké tax wax naa la ko léegi moo daan wax ni kurul yàlla mi bind jaam ñi ëppoo ma yërmande si ñoom mhm. dafa am benn dongo bu musa tawat mhm. sëñ Saaliw ni chauffeur bi góor yóbbu ko ci hôpital bi ñu toppatoo ko mhm. bi mu ko yóbboo ci hôpital bañ toppatoo ko ba indi ko mu toog ci kanamu sëñ Saaliw sëñ Saaliw ni góor a demal nga tàngale ñu kafe nee na góor a dem dikk tuuti rek gis sëñ Saaliw Mbàkke di tuur ay xéwal oh. mu ne ko Mbàkke man bàyyi ma la woon nii sëñ Saaliw ni ko saa l li ma ndongo wax moo dawloo sama yaram bi dani ma yow sëñ Saliou Mbacke yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama baay ngir li nga def ci man sëriñ Saliou Mbacke kon ku dul yàlla mi bind jaam ñi ëppoo ma yërmande si ñoom mm. yërmande sëñ Saliou dinaa si joxe la am taalibe bu ñuy mm. dafa ànd ak soxnaam ziyaare ci sëñ Saliou soxna si nag tubaab bu ñuul la mm. naka mu ziyaar ci sëriñ yu Mbacke rek dikk ba toog li ñu toog yépp mu ngi xool yëre sëñ Saliou bi ñu génnee mu ni boroom këram sàllaaw seen maara bi war ngeen ko wax mu fóot yëre mi de <laughs> yëreem yi tilim war ngeen ko wax mu changé ko de te nee naa la léegi mooy milliardaire te du feeñ ci ay yéreem Serigne Saliou yor ay milliards te doo jël fili doo jëfandikoo félicitaire ay bureau yi ñu deg def ndox teg ko ci taatu garab ba mu sedd la Serigne Saliou Mbacké di jëfandikoo de pare doon milliardaire mm-hmm. mu ne ko sàllaaw war ngeen ko wax mu changé yéreem yii de mm-hmm. safa euh, Moussa ni ko kon yow li ñu toog yëpp yaa ngi xool yére Serigne Saliou bi mm-hmm. mu ne ko da war a changé Serigne euh, mu génn Moussa ko bis tey may naa la sa baat ñu toog ba jëmmi jamono mm. sëñ Saali woo Moussa ba mu ñëw mu ne ko li ma lay laaj nag ma wax dëgg te bu mu wax safaan mm. ana soxna si mm. mu ne ko mbàkke yi naa ko de lan la def mu ne ko dama laa bëgg lool aw ma kudul yow te ndekk li ñu toog yëpp mu ngi naan sa yére yi daa tirim danga ko war a changé te mbàkke yow rek laa bëgg <laughs> sëñ Saali ni ko daf maa yéene ma set rek du dara daf maa yéene ma set rek daane ko bu bëggee lu ma neex dama nga jëlee ko indiwaat ko ci kër gi yëkkati 3 millions jox ko ni ko demal nga neexale ko soxna si mu ñëwaat ci biir kër gi bu dee bëgg nga lu ma neex daane ko moom soxna si ne ko may naa ko sama yére bu fogatee bu tilimatee may naa ko mu di ko fóot man Serigne Saliou Mbacké xoola ji yërmande moo tax Sëñ Tuubaa ne doon naa yeneen bi doonu ko ma sëkk waaye jikko yenent bi kenn nit moo tax ma ta attunu ko moo tax ma tasaare ko sama doom yi daane ku bëgg a gis yenent bi jàppal Serigne Modou Moustapha ñu ne ko lu tax hmm. mu ne Moustapha ak yenent bi ñoo nduróo lépp lu yéeme kii Moustapha la tudd kee Moustapha la tudd way juru yenent bi Amina la tudd sëñ Modou Moustapha soxna Aminata loo ko jur bi amee juróom-benn at ci la génn jamono euh, bi mu amee juróom-benn at ci la ndeyam génn jamono sëñ Modou Moustapha Mbacke mu amee juróom-benn at ci génn jamono way juru yenent bi ndox suufa ako laal jaana ko mat way juru sëriñ du Moustapha Mbacke ndox suufa ko laal jaana ko mat yenent eh. bi am na màkk am taif ah. sëriñ du Moustapha am na Touba am taif màkk ak taif 33 kilomètres la Touba ak Taïf gu Serigne Modou Moustapha 33 kilomètres. waaye eh. waaye. Cheikh Ka nee na Aminata jur Moustapha. Aminata jur mii Moustapha mii Moustapha yi ma lay Moustapha amul xëj ak seet Makka ak Taïf gële Touba ak Taïf gii maître yi ñoo ko tollale su la neexee natal seet. kon ku bëgg a gis yeneen bi jàppal sëñ Modou Moustapha. Mm-hmm. waaye nag jubóo gi ma jubóog yàlla. ba lu ma ko ñaan may ma ko suñ fàlloo ko téye ci loxo bi. borom maay Sénégal ku ma bañ ceeb nga bañ. Mm-hmm. mi di ñëpp ay raxas ba set toog ceeb. Mbàkke lu tax mu ne Alaaji Maalik Gay sama nijaay mm. rasulillahi mooy sama maam waaye sëñ Bambaay sama baay mm. mooy ki daan wax nii maay verte zone rouge man Serigne Fall uh-huh. vert bi du ma weer kenn zone bi du ma sonal kenn rouge bi du ma ruusloo kenn moo jàkkaarloog bàyyi moom Serigne Fall naan ko you cannot see mm. you want si see a man like my father Serigne Bamba Xaadimu Rasuul kuy waaw yaa raa iman mis la say xii mahlan fa la sa taraaku yow mi war ko mel ni sama baay toogal doo ko gis àdduna doo ko gis alaxira moo tax ko dama laa bëgg lool mu ne ko mbàkkee mu ne ko xam naa ko de mu ne ko sëñ Fall sax lool ko xam naa ko de mu ko sax léegi dama laa bëgg ba lu ma ci góobee gar ko sëñ Fall ni ko ku ma bëgg tamit dëgg doo góob te doo gar te foo tool dangay ngay laax kon jubóog gi ma jubóog yàlla hmm. sëñ Fall Mbàkke ku téye ci loxo man gi ma man alxuraan ba ci liggéey rasulillahi di way alxuraan rek yaa kitaabal karimi anta xalili wa xabibi wa kunta xablu tabibi alxuraan di 114 saar 60 xisib 6666 aya 240 rubon 180 sumun 77 439 baat 332 0 keef xaraf alxuraan jeex suñ tubaa way lépp yérante bi kon man gi ma ko man féetale naa ko si Abdoulaye hmm. daaray kaamil Cheikh sàngara si Cheikh Abdoulaye da ko génne Touba yamba ji Cheikh Abdoulaye da ko génne Touba xaji Cheikh moo ko génne Touba kon alxuraan féetale naa ko Cheikh Abdoul Ahad daa ni nag taxaw ci istixaama njub Cheikh Abdoul Xaadir képp kun muminan wa musliman wa muxsina azhabta fawran li siwaana kulla man laysa yakunu muminan ya za zaman azhabta fawran li siwaana kulla man laysa yakunu musliman ya za zaman azhabta fawran li siwaana kulla man laysa yakunu muhsinan ya za zaman kan moo ko téye borom 1243 vendredi Serigne Abdoul Khadir daani nag jaam ñi liggéeyal gin may liggéeyal ma war leen a fay teg naa ko ci loxol Serigne Saliou kon ku mu fayul nga ñàkk jaam ñi lu gën a yéeme jaam ñi liggéeyal gën may liggéeyal ma war leen a fay teg naa ko ci loxol sëñ Saliou mhm. gaal gi jëm àjj àjjana fexe dina jub ak Basiru ndax gaal gi jëm àjjana daaru minan lay déparé du gaal goo xam dañ ciy dugg di dem mais gaalu kun la hab lii safinatan bi kun lil janna min daaratil minani yaazal minna na mhm. ni baara mbàkk du ma wax ci moom ndax baara day mer te bu mere bay yàq lu mu yàq ku dul Ahmadul Xadim mënul koo defaraat kon sëñ Fallou ñu ngi lay sant ah! di gërëm di jéggalu ñëpp di sant sëñ bu baax di sant wax ñu wax ñu ki nga doon man de maay ndongob sëñ maay ndongob sëñ Tuubaa bi gën a xeeb dëkk fii ci Madina Fall Talla bu bees mhm. ndongob sëñ Tuubaa bi gën a xeebu ci ndongo yi mhm. gën cee néew xam-xam moom moo taxawoon fii de ja barkeelu ci jëmmi sëñ Saliou Mbacke bi nga xam ne kenn mënu koo xam. xam-xam bi sëñ Touba ñu dimbali rek. Mm-hmm. boo xoolee fi ñu jaar ci am jàng nga xam ne sëñ Touba moo ñu dimbali. Mm-hmm. al azar gii la ñu jàngi mm-hmm. dem na ci école yu bari am nañ fa ay bac. mais lépp dañ koo jël teg ko ne am na ñetti bac mais dañ koo teg ne ngir liggéeyale ko Serigne Bamba Khadim Rasoul nekk université ba nekk fa ci deuxième année. di continuer foofu suñu jàng waaye lu ñu am waxtaane sëñ Saliou Mbacke moo ñu ko gënal na nga xam ne suñu diggante du yem sooba yàlla lépp na jaar ci sama jëmm ju baax sa waa ju baax ji ku baax a ngi ni ku yaatal damaa toog ba ci yàgg rek mu woo ma ni ma da amoo programme man ko su ma ko amoon sax danaa ko bàyyi ngir sa jëmm ji moom dama ko bëgg lool ngir sëñ Saliou ji mi waay man sëñ Saliou awma ci sago barke Xaadim Rasul kon ñu ngi leen sant di la gërëm di sant suñu cameraman yi bu baax sëñ bàcc mm-hmm. lépp bu leeree moom la bu jaaree yoon it moom la mm-hmm. ndax luñ fi mënti wax mm-hmm. ci moom mee la bu leeree moom moo koy leeral <laughs> kon ñu ngi lay nuyu baax sëñ Fallou di la jéggalu di la jox dig daje ba beneen yoon mm. aqulu xawli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaye Thiès Info yàlla na ngeen am jàmm amin ñu bokk ñun ñëpp ah, kontaan nañ bu baax a baax waaye tam mbég ci moom mm. xam naa ni Thiès Info yéen ñi ñuy seetaan tam war ngeen a bég ndax delloo si na leen eh, eh, fàttali na leen Serigne Saliou waaye tam eh, fu ci nekk ci njaboot sëriñ Touba yi am na fu mu fa jaar am lu mu wax ci yow mu nekk loo xam ni ñun ñëpp ko soxla woon ayca yow itam da da ngay da ngay xool noo ñuy noo ñuy tàggoo xam woy boo nuppee yow itam nga xool nooy tëjee rek sant gërëm ñi nga xam ne ñu ngi ciy jàpp ndax yéen moom faw ngeen di sant di gërëm ñi nga xam ne ñu ngi leen di jàppale <laughs> ayca mi ngoog waaw oh, kontaan naa sant bu baax a baax a baax sëñ Bamba waxtaan bi am na solo barke Serigne Saliou kéemaan la daal dañuy barkeelu rek daal di tëj waaye lépp lu luñ fi wax rek yàlla na ko sëriñ bi ful yàlla na ko sëriñ bi dégg te mu ngi koy dégg ndax mu ngi suñu biir waaw mu suñu biir lépp mu ngi koy dégg waaye dañuy sant bu baax di sant waa kër gi di barkeelu rek xam naa ne après ñu daal di daal di fal demeel Serigne Bamba def ñaan ndax moom su ma koy gis rek sama sama kéemaan la ndax fu ñu gisante ay cant la may gis ko mi waxtaanee Serigne bi. barki Serigne Touba li may siifloo sax di ñëw si moom xaw ko mm, mm. waaw dañ koy ñaanal rek sëriñ bi gën koo teg loxo. sa leer gi ñu fi miinoo ay mbàkke miinal ko sunu biir borom tekk géek maanoom géek mu ñay gaak leeram gee yaa sunu xol yaa di sunu wiruwaay maam Saliou bëgg naa la sa doxin wéet du fi ñaare ay Mbàkke bu ko sine tàggali ko sa sago borom tekki géeg maanoom géeg mu ñay gaak leeram géeg yaa di sunu xol yaa di sunu wéeruwaay maam Saliou bëgg naa la sa doxin wii du fi ñaare ay mbàkke bu ko si ni tàggali sa sagoom borom tekki géek maanoom mu ñay gàkk leeram ge yaa di sunu xol yaa di sunu wéruwaay maam Sali woo bëgg naa la ma sa la bëgg doone Mbàkke man sa wérekaam lay ñaane kon mënuma way wa dee te wayuma sang bee ku nu may du nu ñaan mooy sàlli woo kon man sa géwël la bëgga doone sa la bëgga yaa nu dëkkoon dëkkaale dëkkale se jàmm ñun de ñoo ngi ay mam man sa géwël laa doone ay mënu ma way ba dee te wayuma sang be ku nu may fal damel du nu ñaan mooy saliwoo bamba man sa nu nga laa bëgg doone jërëjëf di nuyu ñëpp <laughs> waaw di ñaan euh, ñëpp am jàmm si barkeb Serigne Saliou tey guddi gi lépp ñu ngi koy ñu ngi koy féetale si Serigne Saliou Mbacké waaw di ko ñaanal rek moom ndax li ñuy ñaan sax amul ndax moom borom ñaan. waaw ñun daal sant nañ bu baax di nuyu ménagères yi di nuyu staff yi ñoom Baye Galas Assane Modou Mamour. Euh, sëñ xaadim seen ñoom ñëpp ñu ngi leen di char bu baax Ameth Diouf ñoo nekk sama ginnaaw ndax lu may lu ma nekk rek Fall demee ñu ngi fi ñoom Mambou So waaw ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax ak soppeek yëpp nag Bamba maa ngi koy sant bu baax a baax di nuyu ñëpp nag. macha allah kontaan nañ macha allah am na solo am na solo am internet Thiès Info kon nag mbokk yi euh, ñu ngi leen di sant bu baax a baax waaye itam di leen gërëm ak a jaajëfal mbokk yi may sant tey gërëm ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi jàpp ci liggéey bi mm-hmm. euh, nee naa leen Thiès Info dafa ñëw ak lu bees tàq mbokk yi euh, muy li nga xam ne moo di web rajo diaspora Sénégal mm-hmm. di rajo bi nga xam ne Modou mm-hmm. xam naa ne sax ci kanam tuuti da nga fa commencé tàbb si yow itam waaye Bamba itam na nga waaj te xam ne di nga fa ñëw def si ay waxtaan yu am solo ci li nga xam ne moo di web rajo diaspora Sénégal di rajo bu bees boo xam ni euh, euh, waa Thiès dañ koy déglu Sénégal ñëpp dañ koy déglu waaye waa bitim réew itam dañ koy déglu loolu moo ci loolu moo ci gën a gën a am solo ndax ci ci site bi lay daw ci internet bi lay daw mu nekk loo xam ne lu am solo la waa Thiès info ñëw indi ko teg ko kenn ki nga xam ne moo di Sey Latir ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko kontaane mbokk yi ki nga xam ne moom laa jàkkaarlool di bàcc ma sàmba nee naa leen image moo ci man ci mim réew saa su cadré rek nga xam ne lu mu cadré rek jaarul yoon ba tax na kon ñu ngi koy a baax di ko euh, moom tubalu maa ngi koy Kolle sama yaay Kolle euh, Diop maa ngi koy béggee ak monsieur Momar ñoom itam ay ay borom yu baax la ñu Mamour Fall Ndeye Fall mbokk yi di sant gërëm képp koo xam ne rek yaa ngi ciy jàpp kon nag mbokk yi jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci yéen ami internet euh, Thiès Info ba mu doy euh, def ko ci ki nga xam ni moo di Seydina Bamba def ko ci Modou Diop def ko ci Bàcc Masamba def ko ci man Fall da mel seen mbokk seen xarit surtout buur seen bàyyi Sëriñ Sall